ترجنا من نوره نيل ما نلنا من الوعي ترجنا من نوره نيل ما نلنا من إذا كان الكريم يجود فضلا فكيف يحاص للفتل مخاف أتانا بالجوائر عاليات أيوة يا واحد فأكرم سلام فمن ذو الإنكار أشرار لا إله إلا الله يا القلوب عليك ربي زلزلا وذالا قلوب قلوبي عليك ربي زلزلا وذالا يا قلوبي عليك فيه صلى وسلم لا نقلوبي عليك ربي وفتي النجم الأخوي جك ويا ربي صلي دائم وسلم على المكرم ما تتماوى في ليل أزماوى من أصلى وقامها عليه وسلم عليك ربي صلى وسلم حمد الله متقلبك محمد لا لقلوب عليك ربي فضي نفسك لقيتك وسيدها الخلق أحسن خلقي عبيد مالك سر حبيبي حبيبي

الخلق سره حبيبي حقا سر المعتزى جلالك الله عليك ربي صلى الله يا القلوب عليك ربي صلى الله قد طلبوني وجدوني ولما هذا نحو المكرم يا الملوك عليك به صلى وسلم يا الملوك عليك ربي صلى وسلم يا لنتني قد تلموني وجدت وجودي كلما حزن هذا نحو المقرر يا لبل الليل في يا لبل في الليل صلى ليل الله يا لنجري قد طالبوني ربي عليك ربي فلا يمتلك فلا يمتلك ويا القلوب عليك ربي فوت ملي وبدي يا أهل النجدي أتعلمون وجدوا كل ما يانا عن المحال صلوتي عليك ربي صلى وسلم غالب روحي عليك ربي صلى وسلم كلما يدي هذه المكان المكرم المكرم لما يهدي وفي المحاذاة نحو المكرم يا لطلوب عليك ربي صلى وسلم والملوك عليك ربي صلى وسلم أنا واكر سلسلة المدن تكون لمن باي باي والله كل افتك خليفة كل زيارة مجلد بدأت تمنى قبل tay tay tay kar bay tay wa kar tay tay la ki ko lay lan la ka qalifa nat ziyar asal fi siri ma bakri alhamdulillah ma sati allah kisakiyone eh, alhamdulillah ma sati allah الحساب سنده بوتي سنت موضى مؤمن مولى أبا بكر سيد بطان تبقى من لبعض baay baay baay baay waay alaay ki koy koy lala ibnu xalifaan nanu ziyaare wa tasiri famaturi yaman mi xiyaami bu ñëpp teewe alxaaji maalu taxaw taxaw yaman mi xiyaami bu ñëpp teewe ana soppe Sëriñ Bamba ko yi yombal xiyaame bu ñëpp teewee Alaaji Maali taxaw jage gëroo guddu ci sànnu maama ñëpp na naan bal tumbu ci kaw sar bu doon te kumbul lu mel ni baay fay bëgg bëgg naa ko bañ na ma jox ay sëriñ Babacar wallaay ki koy safa waada def na ko xalifa na ni yaare mu jaar lay lay la la ci suuf fu gën a baax ku gën a rëwel bay ci suuf fu gën a teel baax lay lay la la ku gën a doon baax ku gën a rafet ma yi suba ku gën a teel manu may taaru na ay tadana rabbuna xalifa Babacar ay waay mu doon te ku mu neex nga mel ni baay bay ku bëgg bëgg na ku bañ na ma jox ci Sëriñ Babacar wallaay kuy kuy la doon la xalifa la ilaha illallah gisuma ku gën a baax ku gën a rëy gisuma ku gën a baax gisuma ku gën a baax ku gën a rëy gisuma ku gën a baax ku gën a rëy maam mbay taaru na ay tàggat na foofu na xalifa baax ay foofu لكم قبل باي باي مداني باي كي كي لخلق قلبا ندم يا بدان برد إلي أرجو بين أرجو جبر جاكي يصلح إلي أرجو شوف الخليفة إني أرجو فأنا أرجو أن يبقى إلي أرجو فأنا أرجو أن أرجو أرجو تالي بشيخ أرجو طالب شيخ فجك ويلي أرجو بك سير بابكر لخت بك سير بابكر لخت بك سير بابكر لخت بك سير بابكر لخت بك ولا في أبو سمي سير بابكر إيه سبك سير بابكر لخت بك سير بابكر لخت بك سير بابكر لخت بك سير بابكر لخت بك سير بابكر لخت بك سير بابكر جوجل بك سير Serigne Babacar jugal taxaw Serigne Babacar jugal ku bëgg Serigne Babacar jugal ku bëgg Serigne Babacar jugal taxaw ju daw na fa bay ku bëgg Serigne Babacar loxo ju aajo gaaw fay bëgg sëriñ Bamba kor la fay sala fay sala fay bëgg sëriñ Bamba kor la fay sala fay sala fay bëgg sëriñ Bamba kor la fay sala fay dikke bay bay bay bay kor la fay ci biir bëgg sëriñ Bamba kor la fay ko maar banaani fa may oh, bëgg kor la boo tuggee waaw bëgg sëriñ Bamba kor la fay

Babacar sëñ Babacar sëñ Babacar ku bëgg sëriñ Babacar la ko defal ku bëgg sëriñ Babacar la ko defal sëñ Babacar ku bëgg sëriñ Babacar la ko defal ku bëgg sëriñ Babacar la ko defal sëñ Babacar ku bëgg sëriñ Babacar la ko defal mooy woyal maam ku bëgg Sëriñ Babacar Sëriñ Babacar ku bëgg Sëriñ Babacar yow góor gi laay woyal kay ku bëgg Sëriñ Babacar Sëriñ Babacar ku bëgg Sëriñ Babacar la ko am nga fi bëgg Sëriñ Babacar Sëriñ Babacar Sëriñ Babacar Sëriñ Babacar ku bëgg Sëriñ Babacar la ko am nga fi bëgg Sëriñ Babacar kër sëñ Babacar ku yaakaar sëñ Babacar loxo Dakar ku bëgg sëriñ Babacar loxo Dakar tuusal may ku bëgg sëriñ Babacar loxo Dakar ku bëgg sëriñ Babacar loxo Dakar tuusal may ku bëgg sëriñ Babacar loxo Dakar ونفل أنت الحديث وزولي لو جدوا جمال كنت آلي إلي وعد كل جمال كنت آلي yaakaar si Bamba kër Loxo Ndeye. yéen a ngi wër xal bu tuur Bakar Sëñ Babacar la ma jaga ku bëgg Sëñ Babacar la ma jaga تكسر الصعبة ترى لغتك من أهلك تكسر الصعبة ترى لغتك ليداك ليداك كندا كندا بالهدي جمزلي تكسر الصعبة ترى لغتك أنا واكر سيرين بابكر تكسر الصعبة ترى لغتك أنا واكر سيرين بابكر تكسر بابكر سنو شيرين لاي ويان بي ويا كار سيرين بابكر سيرين فرغي سيرين بابكر تكسر الصعبة ترى لغتك Jaara lay wayal Babacar oo sëñ Babacar sëñ Babacar sëñ Babacar ku yaakaar sëñ Babacar la ko def sëñ Babacar ku bëgg sëriñ Babacar cooli cooli yow la sëñ Babacar ku bëgg sëriñ Babacar ku yaakaar sëñ Babacar la ko def ku bëgg sëriñ Babacar la ko def ku bëgg sëriñ Babacar la ko def jaar laa ko may mayu fa bari yu laa bi Seex Tijaan Sëriñ fa baax fa baax na tuur bi rasuuli Seex Cheikh Tidiane Chérif a baax Cheikh Tidiane Chérif a baax Cheikh Tidiane Chérif a baax Tidiane Chérif a baax aka baax Cheikh Tidiane Chérif a baax aka baax Cheikh Tidiane Chérif a baax Cheikh Tidiane Chérif a baax yéenay dugg Seex Tijaan Sëriñ Bamba ci góor yaa lay wóor yaa Seex Tijaan Sëriñ Bamba ci góor yaa lay wóor yaa